dalal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéenekaay bi desuwaat ci visite bi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye def ni ki démb ci diwaanu Touba yéenekaay bi ñu xamal ne mooy sotti bu njëkk bu président de la république def ci réew mii gannaaw ba mu jotee nguur gi mu jagleel ko nag xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké waaye visite bi ni mel bett nañu bëri yéenekaay bi dañu nettaliwaat moom président de la république bi mu yeggee ca Touba surprise yu rëy yi nga xamante ni yóbbaale na ko ba mu jugee dem Tivaouane jàngat gi lépp yéenekaay bi desuwaat na ci tañi xamal lii moom président Bassirou Diomaye Faye nag tontu na ay noonam ñi ko doon tuumaal ne gëmuñu këru diine yi démb laa la wax bu ñu tëddee kenn du ci nelaw ndax moom président de la république wane na ni Sénégal gii ne kilifa diine yi cër bu rëy lañ fi am te ni ki démb ko xool comportement am xam ne nag ku wekk këru diine yi la professeur Kalidou Sy di enseignant chercheur ca UGB moom mi ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga président de la république xam na bu baax ne Sénégal gii këru diine yi cër lañu am ci doxalinu réew mi mënul doxal bàyyi leen ginnaaw kon bu ñu ko falee mu nekk président la république dëkk mënul ñàkk bañ a dem ci këru diine yi engagement yi président Bassirou Diomaye Faye jël tamit ci Touba lépp yéenekaay bi deesuwaat na ci l'observateur moom it tënkal ñu visite officielle yi nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye amal na ko niki démb ca Touba ak Tivaouane jàkkaarloo xalif généraux yi waxtaan ak ñoom ci bëgg-bëggam yéeneem ci réew mii rawatina nag dëkk yu sell yi ba tey it yéenekaay bi def taxaw sell ci gouvernement bi nga xam ne bu ñuy xool lim gi néew na lool jafe-jafe yi mën a indil nag seen doxalin yéenekaay bi def na ci taxaw sellu ne en tout cas efficacité moom lañu bëgg moo tax li mu gouvernement bi bariwul nombre ministres yi yem ci ñaar fukk ak juróom problème yi ñuy séntu nag moo di yenn ci ay ministres ñu yor ay ministères yu bëri ñu teg ko ci seen dodd mbaa du yeexal yenn ci ay processus rawatina ñu bëggee jël ay décision ci yenn ci ay ministère lii nag moo jaral laajte source a moom def taxaw seetlu ci visite bi nga xamante ni premier ministre Ousmane Sonko amaloon na ko niki démb ci building administratif bi nga xam ne ay milliards yi milliards lañ ko taxawalee moom président Ousmane Sonko demoon na fa niki démb waaye la ñu fa seetlu mbiru politique la de ay ex collaborateur président Macky Sall yuy jéem a buruxlu laa la wax pour mën a am relation ak Ousmane Sonko ñii bu ñuy lijjanti nag def ci seeni poste ñii ñoo ngi xool yan buntu la ñuy jaar ngir mën a photo wu nag ak président Ousmane Sonko pourtant ñu bëri ci ñoom musuñoo apprécier président Ousmane Sonko démb nag visite bi nga xamante ni président Ousmane Sonko def na ko ca building administratif bi soppi na lu bari de am na ñoo xamante ni léegi gëm nañ ko de ñoom ña fay kës néew doon ànd ak président Macky démb kenn xàmmeewu leen ci biir mbooloo mi kenn ku ci nekk yaa ngi doon lijjanti sa bopp ak jéem a lijjanti naka ngay fexe ba président Ousmane Sonko mi photo wu ak yow waaye président Ousmane Sonko mayu leen lépp de ba tey yéenekaay bi def ci visite bu rëy bii nga na ko niki démb nag ca Touba waxtaan wa mu séq xalif général des mourides yéenekaay bi deesuwaat sàkku ci yow ñaan ci mission bi nga xamante ni la teg ci suñu ndodd yemu ca de moom président de la république teggi na tuuma yi nga xamante ni moom la tegoon ci seen ndodd rawate na ci jamonoy campagne bi ñu bëri di wax ne waa Pastef gëmuñu këru diine yi sax nag ñu bëri ñàkk ñëw Basiru Jomaay Fay mi ca rawate na jàkkaarloo xalif général contrat déem rek ci jamonoy campagne yi am na ñu ci doon profito di wax lu leen neex yàq dara gëmloo askan bii ne Bassirou Diomaye Faye gëmul kilifa diine yi lépp le président de la république seppi ni ki démb raxas deram ba mu set wecc ci kanamu xalif général des mourides ndax moom président Bassirou Diomaye Faye mu ngi xamal xalif général bi ne li tax ñëwuñu ci campagne électorale bii fii ci Touba weesuwul nag respecté sa décision bi nga xam ne jëloon nga ko fii doon sàkku ci yi ci période campagne bi ñu bañ koo dugal ci wàllu politique lii rekk kese dong nag moo tax moom président Bassirou daloon ca Touba waaye tuuma yiñ ciy teg lépp dara du ci dëgg Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké porte-parole xalif général des Mourides di xamal nag président de la République ne ko fii sa kër la Touba gii këru Serigne Touba la xalif bi moom amul lu muy ñaan lépp lu mu mës a sàkku ci ab président de la République soxla askan bi la soxla waa Touba la soxla borom Touba la kon nag li ñuy sàkku ci yow rek mooy nga doxal jàppaleel askan bi tey jéggaleeg mujj ga yéenekaay bi xamal nañu ne Serigne Mountakha mbégte la Touba moo tax la mu am ci teraanga lépp jébbal na ko ko niki démb bokk na ci téere bu sell bii di alquran waaye tamit président de la république jébbal Serigne Mountakha mi moom tamit ay cadeau ba mu fa jógee dem Tiwaawan jàkkaarloo xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour yéene bi du xamal ne altine démb ji de diine yi nag kontaan nañu lool direct news na président de la république Bassirou Diomaye Faye deful lu dul delloo njukkal ma ca ndaa la moo tax président Bassirou Diomaye Faye mujjee réservel dëkk bu tedd bii nag visite bu officielle bii démb nag ñu bëri ca Touba seen xol sedd na Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñaanal président de la république ne ko nag gis nga sa yéen wii yan na ko ndam rek lañ la ciy ñaanal te yaakaaru askan bi tamit yàlla nga ko mottali président Bassirou Diomaye Faye tamit jël engagement am xamal xalif général des Mourides ne ko même boo sàkkuwul ci ñun dara sax suñu yitte moo di fexe ba dëkk bu tedd bii lépp luñ fi war a jafe-jafe yi nga xamante ni moo fi nekk surtout ci wàllum ndox nag ñu indi ci solution yéenekaay bi deesuwaat ci élection présidentielle yi ñu génn taxawaayu xalif général des mourides ci ñàkk d'accordu troisième mandat wu président Macky ba ndam lu rëy li nga xamante ni tamit président Bassirou Diomaye Faye am na ko ca Touba gagné élection présidentielle yi ci dëkk ba ci 90 pour cent laa la wax contre Benno Bokk Yaakaar lii moo tax yéenekaay bi di xamle ne président Bassirou Diomaye Faye deful lu dul delloo njukkal nag waa Touba ci visitu démbam bi nga xamante ni ña fa dëkk mbégte contentement dong lañu am mu ñëw nag wane fa yar gu mat sëkk yéenekaay bi politique ak gouvernement bii nga xam ne tey Bassirou Diomaye Faye bu amee ndam waa parti démocratique sénégalais jàpp nañ ne seen loxo mu ca biir donte nag mësuñoo sàkku nag benn poste boo xamante ni dinañ ko am ci gouvernement Bassirou Diomaye Faye bii ñoom libéraux yii nag ni ki démb def nañu réplique tontu ñi nga xamante ni jàpp nañu ne bu fekkee ne PDS amul ministre ci gouvernement bii yëf yi day niroog sabotage ñoom libéraux yi di xamle ci biir yéenekaay bi ne mësul am ñu togg ak a régime bi fi nekkoon xeex ba Amadou Ba mii du jot ci nguur gi xeex tamit ba résultat élection présidentielle yi kenn du ko manipuler lii moo nekkoon suñu objectif waaye amul leneen choix yi nga xamante ni moom la premier ministre Ousmane Sonko def amuñ ci lenn lenn lu ñu ci metti ndax seen tuwuñ woon ci lenn vox populi des soit ci visite officielle bi nga xamante ni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko niki démb ca Touba teg ci di ñu xamal ne am na démb ñoo xamante ni ne la wuñu dee ndax kàddu yi salte yu ñu daan jël di ko teg ci deram di gëmloo nit ñi ne Bassirou Diomaye Faye mii gëmul këru diine yi démb nag ñoom ñëpp mujjee rus ndax waxuma la Touba sax waaye moom président de la république dem na ba Tiwaawan gisee xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour waxtaan ak moom sàkku ci moom ñaan yéeneem ca biir Touba ak Tiwaawan moom waxtaan na ci xalif général des Mourides ak xalif général des Tidiane insisté lool nag ci lan moo tax jamonoy campagne bi demul ca Touba gisee xalif général des Mourides ne am wor ma rek jox wor ma nag kàddu xalif général des Mourides bi nga xam ne sàkku woon na ci homme yi ku ci nekk nekk ci say activité ba jamonoy élection yi jàll pour ku sàkku pour gis ko nag su boobaa dina yomb Sonko lii moo taxoon président de la république Bassirou Diomaye Faye demutoon ca Touba kàddu yi nga xamante ni xalif général des mourides jébbal na ko président de la république yéenekaay bi dellusiwaat na ci ne bokk na ci nag mu daal di gën a bàyyi xel askan bi seeni bëgg-bëgg ak seeni yéene bu mu ci jug nay fexe toujours nu muy solutionné nag problème askan bi insisté na nag moom xalif général des mourides ne lépp lu ñu sàkku ci nguur nekkul suñu intérêt bopp waaye intérêt population bi la wàllu politique yéenekaay bi dañu xamal ni coalition bi àndoon nag Idrissa Seck fi mu toll nii tas na tasar idi président 2024 plateforme ba tas nañ ko bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Ciss ndax moo nekkoon coordonnateur plateforme bi ni mel lan moo nar a nekk nag avenir u politique gu Idrissa Seck lii moo jar a laajte <laughs> loolu ngay jarul laajte ñu mënoo sant mu ne wele moo koy continuer leen di abonné ka bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV te gën a bàyyi xel télévision bi ngeen ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm bu suba ak jàmm incha allah